أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل والصلاة.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فالرمضان محطة سنوية يتزود فيها الصالحون من وفود الإيمان والتقوى قال المولى جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إخواني رمضان قصير لا يتحمل التقصير وقدومه عبور laa yaqbalul futur mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu xutba tey mooy laa takunu ka ixwati yusuf mooy yéen samay mbokki julit bu neel mel ne mbokki yusuf yéen jaami yàlla yi ramadan jaamu yàlla boo xam ne annuel la bu ñëwee foog at ñëwaat mu doog a ñëw waaye jaamukaayu yàlla boo xam ne yatazawadu fiha salihun ñu baax ñi ñu baax ñi ñoo ci ut yóbbal ñu baax ñi ñoom ñoo ci ut yóbbal képp ku baax ci Ramadan ci ngay ut yóbbal boo yóbbu ci sa boroom ñu war a góorgóorlu kem talaay kattan ba ramadaan bi ñu ut ci yóbbal képp kuy tukki dafa laaj nga am yóbbal ndax fa nga jëm dañ lay xaar nun dañuy tukki war a jóge àdduna jëm alaaxira kon laaj nañu am yóbbal te ramadaan yóbbal la ixwatal imaan ban yóbbal la ñu bëgg mooy al imaan wa taqwa ngëm ak ragal yàlla moom la ñuy ut ci ramadaan ku ko am am yóbbal sunu borom subhanahu wa taala mu ne yéen way gëm yàlla yi yaa ayyuha alladina amanu yéen way gëm yàlla yi kutiba alaykum siyaam farataal naa ci yéen koor farata mooy santaane yàlla soo ko jëfee nga am tiyaaba soo ko bàyyee am bakkaar loolu mooy farata ndigali yàlla la bu mu la digal nga def walla tere bu mu la tere nga bàyyi loolu mooy farata yàlla ne nag man maa leen sant koor comme ni ma ko sante woon ñi leen fi jiitu woon li tax ma sant leen ko mooy pour ngeen am ragal yàlla la'allakum tattaquun mbokki jullit yi mboolem ibaadaat bu ñu yàlla sant nañ ko def ragal yàlla lañ koy lañ ciy jëlee suñ ko defee mboolem jaamu yàlla yi sunu borom ne man maa leen sant na ngeen ma jaamu ndax ngeen am ragal yàlla yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum alladi xalaqakum yéen ñi gëm yàlla yéen doomu aadama yi jaamu leen yàlla tabaraka wa taala su ngeen jaamoo yàlla lan ngeen ciy jëlee mu ne la allakum tattaquun pour ngeen am ragal yàlla ixwaani ramadan qasir doomu ndey mbokk jullit yi weeru koor dafa gàtt ay fan la yu ànd ak seeni semaine bëri bëri weer la kon lu gàtt la moo tax yàlla ne ayyaamam maadudaat ay fan yu ñu lim la laa yaxtamilu taqsir lu gàtt laajul nga koy gàttal lu ñu wàññi laajul nga koy wàññi lu tuuti laajul nga ci am tuuti ramadaan li muy gàtt gàtt gàtt li muy tuuti tuuti tuuti nit mën na cee texe àdduna ak àllaaxira kon lu gàtt laajul yow tamit nga gàttal ko lu tuuti laajul nga wàññi ko wa qudumuhu abuur dikkam dafa gaaw yéen a ngi fàttaliku ci saabaan ñu defoon fii xutba ñu doon wax nit ñi nañu préparé des na ay fan tey ñu ngi ci ñaata tey ñu ngi ci ñaata jeexal nañ genn wàll gu njëkk gi ramadaan ñetti fukk la benn fukk bi dem na kon lu ci desati kon dikkam ak demam comme xef ak xippi lu gaaw la laa yaqbalul futur lool nag laajul tayal dafa gaaw ba nga xam ne ki fekkee ramadaan laajul muy tayal laajul muy yaafuus laajul muy yàccaaral dafa war a xam ne lii ni mu gaawee dama cee war a profité looloo tax ñu ne laa takunu ka ixwati yusuf ngalawaay bu leen mel ne mbokki yusuf ixwaan yi xam ngeen ne ramadan bayna ahda asara shahran weeru koor mu ngi ci diggante fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñaar boo koy lim ci weeru lislaam yi da nga fay fekk weeru koor xam ngeen ne Yuusuf amoon na ahada asara kawkaban la géntoon fukki biddéew ak ñaar moom tamit la géntoon comme fukki weer ak ñaar yi Yuusuf tamit daal di gént fukki biddéew ak ñaar ci diggante fukki biddéew ak ñaar yi mbokkam yene nañ ko rey ñooñu tamit nekk seen famille fukk ak ñaar ñu ne uqtulu rey leen ko yéen nag wala taqtulu ramadan bu leen rey weeru koor mbokk yusuf yi ñoom dañ ne nañ rey yusuf yéen bu leen d'accord di rey weeru koor wa qaala ixwatu yusuf itrahu ardan waaye waaye bu ngeen ko reyul kon sànni leen ko yéen bu leen sànni weeru koor laa tatruhu ramadan wala talquhu fil jubbi mbokk yusuf yi ñoom dañoo jëloon yusuf sànni ko ci teen yéen bu leen sànni seen weeru koor ci ndandu foy foy bi mu dem wala tabiu bu leen ko jaay mbokk yusuf yi ñoom dañoo jaayoon yusuf yéen bu leen jaay seen koor jaay nañ ko bi samanin baxsin darahim ay dërëm yu ndaw lañ jaayo yusuf yéen bu leen sànni seen koor ndax mbaxal démb laa gis ay ponkal yuy yuy aña mbaxal démb ci waxtu wi démb ponkal yoo xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom mën naa yenu saaku cinquante kilo ceeb dara dalu leen lu dul di wootewu ñun barab sàngam lañ bokk ñun waru ñoo woor wallahi allazi laa ilaha illa huwa ku bàyyi ndigalal yàlla ndax ndigalal nit booy dee di dem safara ndigalal yàlla kenn du ko bàyyi yàlla lu mu digle jëfe rekk waaye saa yoo sànnee santaane yàlla ndax santaane nit topp caaxaan yi ñuy wax fii ba ñu bàyyi loola julli bàyyi loola woor bàyyi loola arkaanul islaam bu leen def nangam bu leen def nangam nga topp ci ay caaxaan allahu akbar li ma lay ñaan mooy bul dee wallahi bis boo dee ba nu dugal la ci morgue bi sang la sang la yeew la ñëw gas pax ba mu xóot suul nit ñi ñibbi yàlla fekk ne ne tarakuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw dallu maaka ma nafaawuuk walam yabqa laka illa ana wa ana alxayu allazi la amut su boobaa nga doon réccu keroog ngay wax yaa laytani kuntu turaba yéen bu leen rey seen koor mbokki yusuf dañoo bëggoon rey yusuf bu leen sànni seen koor mbokk Yusuf dañoo sànni woon Yusuf bu leen ko sànni ci teen bu leen ko sànni ci ndànd foy-foy bu leen gëm léeboon ak lëppoon gëm leen seen boroom bu leen jaay seen diine nañu jaayee woon Yusuf kenn du jënd sa diine poñetu àdduna wallahi lépp luñ la jox ci àdduna ne la bàyyil yàlla boo ko jëlee da ngay perte ndax di nga ko bàyyi fekk yàlla képp koo dégg ndigalam di nga ko bàyyi fekk yàlla te kooku bis booy dee du ko yëg dañuy ñëw ne ko diw de faatu na mu tiit ne xanaa dafa feebaroon loolu kañ la kon bu xamoon dara mu xam bis bi ngay dee ixwatal imaan yéen mel leen ne buur ba buur ba moom dafa gis yuusuf mu xam ne kii daraan ci moom yiw a ngi ci moom mu daa di koy jënd yóbbu këram ne jabaram ak ay mbokkam akrimu maswaahu asa an yanfa'ana aw nattaxisu safia aw nattaxisu walada yéen nag jàpp leen koor nattaxisu safian yowma alqiyamati buur ba moom dafa jënd yusuf yóbbu këram ne soxnaam waay waay yaral yaral toppatool amaana bu màggee mu jëriñ ñu yéen tamit jël leen koor ànd leen ak moom dund leen ak moom bëccëg ya guddi yi asa an yanfaana aw nattaxisu safian yowma alqiyama wallahi bu ñu dundee koor guddi yeeg bëccëg yi jëriñoo koor jaamu yàlla ni mu ñu sante yowmal qiyaam koor dana ñëw ramm ñu dugal ñu biir aljanna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa kuntum tatma'una man yashfa'u lakum yowmal qiyaama fa haza huwa ramadan walquran yashfa'ani yowmal qiyaama doomu aadama ci alkandeem ci lottam ak tëleem day toog naan man diw moo may rammu rammu ñépp di jaamu yàlla nga gis waa ji toog yàccaaral lu tax mu yàccaaral dafa yaakaar ku ko rammu yowmal qiyaamati ñun ñëpp bëgg nañ ku ñu rammu yowmal qiyaam alquran ak koor dañuy rammu yowmal qiyaam koor day ñëw na yàlla kii maa ko bàyyi woon lekk bàyyiloo ko naan bàyyiloo ko ay bànneexi bakkanam maa taxoon bëccëgi weeru koor lekkul maa taxoon naanul maa taxoon caaxaanul yow yàlla tin ma ci moom alquran daan ne yàlla kii maa ko tere woon nelaw guddi bu guddee su guddi woon ba ñépp tëdd ñépp wéet ku nekk wéet ak ka nga bëgg waa ji man lay wéetal maa ko tere woon nelaw kon yàlla tin ma ci waa ji alquran ak koor yàlla may leen ñu tin waa ji koor jàpp ci loxo ndeyjoor alquran jàpp ci loxo càmmoñ ñu dugal waa ji aljanna ixwatal iman ramadan sahru sibaaq weeru koor weeru njëkkante la yatasaabaqu fiha saalixuun fi hada sahr bisiyam weeru koor weeru njëkkante la weeru góorgóorlu la ñu baax ñi ci la ñuy profité point de départ bu ñuy njëkk a def ñoom ñu baax ñi dañuy profité daal di woor dañuy profité woor wa mimma yuhawwinu ala almuslim masaqatu sawmi an ya'lama anna sawma ramadan ahadu faraidi islam nit ab jullit bokk na ci li tax muy def yëfu yàlla santaane yàlla bokk na ci li tax mu koy def su yégee ne lii kat yàllaa ko santaane te farata la moom mu gëm yàlla daf koy def rapidement du fa toog di xaar moo tax koo gis woorul weeru koor gëmul yàlla ku woorul weeru koor da ngaa murtad da ngaa génn ci lislaam ku woorul weeru koor dafa weddi arkaanul islaam ku woorul weeru koor dafa weddi sayyiduna muhammad ku woorul weeru koor dafa weddi yàlla borom asamaan ak suuf ndax yàlla moo ko sant mu lànk iblis bi ko yàlla santee mu lànk fu mu mujje aba wastakbara wa kaana min alkafirin yàlla ne ca yéeféer ya la bokki te iblis benn rek la la bàyyi woon benn mbir kese la bàyyi woon benn mooy sujjootalal aadama mu daal di lànk yow mi bàyyi julli bàyyi woor ñaata nga bàyyi yow mi bàyyi julli bàyyi woor iblis benn la bàyyi woon yàlla dàq ko ci yërmande yàlla ci yërmandeem yow mi bàyyi julli bàyyi woor loo bàyyi ixwatal iman nit bu yëgee ne yàllaa ma sant day oyof ci moom an yaalama anna sawmu ramadan ahadu faraidil islam jullit bi mu yëg ne woor weeru koor benn la ci faratay islaam yi ci santaane yi kenoy lislaam juróom la su ko defee moom jullit bi mu daa di jóg daa di fexe gaawtu daa di def santaane yàlla boobu wal fardu ahabu ila allahi min an nafl farata moom la yàlla gën a bëgg ngay naafi la moo tax ñu ne ku woorul di joxe ndogu amul sens yàlla du ko nangu ndax farata moo ëpp doole sunna joxe ndogu sunna la du farata soo bàyyee woor nga lambar lambari ci tali yi naan da ngay joxe ndogu amul benn njëriñ coono kese wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur balaa muy neex nag nga woor joxe ndogu nga am tiyaaba yu dul jeex ixwatal iman wa ibadatu sawm yajtamiu fiha sabr woor jaamu yàlla googu di koor dafa am yu ci daje bokk na ci li ci daje mooy asabru bi anwaihi kulliha muñ moo ci daje muñ yëpp ñetti façon muñ yëpp dafa daje ci koor ba ca jiitu mooy xabsu nafs ala ma takra bakkan bi poñe nga ko def loo ko lu mu buggut a def te mooy xiif ak mar ak bàyyi bànneex yow mi woor defloo nga loolu sa bakkan muuñ nga jaamu yàlla jaamu yàlla dafa metti yaa ngi taxaw guddi yi di naafila bëccëg yaa ngi ci jàkka yi yaa ngi jàng alquran waaye muñ nga lan bànneex lekk gaa ngi nii naan gaa ngi nii caaxaan yaa ngi nii lépp a ngi nii lépp nga teg ko moo tax ki woor dafa dajale ñetti muñ yépp la dajale ndax koor ku muñul doo ko mën ixwatal iman looloo tax yàlla ne ku wóor maa koy fay comme waa ji dafa dajale lépp ixtassa allahu bi ajrin azim laa xadda lahu yàlla mu ne ki wóor maa koy fay borom bi ne innama yuwaffa sabiruna ajruhum yawma alqiyama innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri xisaab borom bi nee na ñi woor ëllëg yowmal qiyaam maa leen di fay te kenn du leen réglé bokk na ci li ñuy war a njëkkante ci weeru koor wa mimma yatasaabaqu fiha saalixuuna fi hada sahar qiyaamu leyl bokk na ci li ñu war a njëkkante ginnaaw koor gi ñu njëkkante julli guddi yi julli guddi yi bëccëgi weeru koor bëccëgi woor la guddi weeri koor guddi naafila la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man qaama ramadan imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zambi képp ku taxaw guddi weeru koor naafila dara taxul nga def ko lu dul gëm yàlla ak bëgg tiyaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yow yàlla dina la jéggal sa bakkaar wa mimma yatasaabaqu fiha saalihun fi haza sahr bokk na ci li ñu war a njëkkante ci weer wii ginnaaw koor ginnaaw naafila qiraatul qur'an jàng alqur'anul karim ndax xam ngeen ne fa sahru ramadan huwa sahru allazi unzila fihi alqur'an xam ngeen ne weeru koor mooy weer woo xam ne ci la yàlla wàcc alqur'anul karim allahu akbar moo tax xeetu sayduna muhammad yàlla deseelatu leen dara ñoom ñoo des mais yàlla deseelatu leen weeru koor mooy ngën gi weer ñoom la ko yàlla jox yàlla wàcce ko ci ngën gi guddi ñoom la ko yàlla jox yàlla wàccee ko ci ngën gi dëkk ñoom la ko yàlla jox yàlla wàccee ko ci ngën gi mbindéef ñoom la ko yàlla jox yàlla wàccee ko ci ngën gi xeet ñoom la ko yàlla jox yàlla wàccee ko ci ngën gi bis ñoom la ko yàlla jox yàlla wàcce téere bi mu nekk ngën gi téere mu jox ko xeetu seydinaa muhammad kon lan moo fi desati kuntum xayra umma inna anzalnaahu fi laylatil qadr makka mooy ngën gi dëkk seydinaa muhammad mooy ngën gi mbindéef laylatul qadr mooy ngën gi guddi weeru koor mooy ngën gi weer lan moo fi desati alquran mooy ngën gi téere xeetu Seydina Muhammad ñoo gën ci xeet yi lii yëpp yàlla dajale ko jox ñu ko ci weeru koor looloo tax gis nga téere bi ba mu wàccee ci ngën yi yëpp ku jàpp téere bi rek gën say maas ku jàpp ci alquran rek raw say moroom raw say maas gën say nawle ak lu ñu mën a am lu ñu mën a am mën a am bu ñu faatoo kenn du leen woo yow la ñuy woo mbokk jullit yi bokk na ci li ñu war a góor-góor lu njëkkante ko mooy jàng alquranul karim xoolal yonent bi ni mu toll alquran wàcc ci moom mais terewul wa kaana jibril alayhi salaam yalqa nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli layla min arama min ramadan fa yudaarisuhu alquran sallallahu alayhi wa sallam ci moom la alquran wàcc terewul guddi weeru koor gu nekk yàlla day yónni jibril mu ñëw di jàngalantewaat ak yonent bi alquran yonent bi di tari jibril di déglu allahu akbar di ko fàttaliwaat alquran ñun ñoo ngi nii téere baa ngi nii nekk 114 saar am na ci ñoo xam ne ci ñun koor ba léegi laaluñu alquran ak seen loxo am na ci ñoo xam ne dañ koy tiim munuñu koo jàng ndeysaan nga gis jullit bu munta jàng alquran la ilaha illallah mën na jàng lépp boo ko liir loo anglais mu liir allemand français espagnol waaye boo ko tegalee alquran mu ne je ne suis pas fort en matière de coran la ilaha illallah la ilaha illallah ixwatal iman alquran a ngoog day rammu nit yowmal qiyam alquran a ngoog yonent bi ne xayrukum man taallama alqurana wa allama alquran a ngoog yonent bi ne man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al axira fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma maan fa alayhi bil ilmi wa man arada al ilm fa alayhi bil quran wa man arafa quran arafa rabbah wa man arafa rabba daa ilayhi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ku bëgg àdduna na demal nga uti xam-xam ku bëgg alaxira demal nga uti xam-xam ku bëgg a boole àdduna ak alaxira demal nga uti xam-xam ñu ne yonent ku bëgg xam-xam mu ne demal nga jàngi alquran soo jàngee alquran nga xam sa boroom soo xamee sa boroom nga woo nit ñi jëme leen ci sa boroom wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عباد الله ومن الأعمال التي يتسابق فيها الصالحون في هذا الشهر الصدقة بقيت الله bokk na ci li nit war a njëkkante ci weer wi ginnaaw woor ginnaaw naafila ginnaaw jàngal Qur'an mooy saraxe mbokk yi weeru saraxa ngi nii ku gis koo tane sarax ko ku gis koo mën a dimbali dimbali ko nanu fexe ngalawaay ñi woor ba ngoonee nañ am luñ ndogoo buñ ko yëgee sallallahu alayhi wa sallam ne laysa minna man lam yahtam bi umurul muslimin ku dul yittewoo mbiru jullit ñi bokkoo ci ñun yonent si nee na laysa minna man kaana shabaan man baata shabaan wa jaaruhu jaa'i bokkul ci ñun ku denc ndogu sa mb sa- ku denc xëdd sa mbokk nekk sa wet ndoguwul benn borom xam-xam day def conférence ci benn télé benn seenu télévision bu tudd Al Jazeera am téléphone bi sonné am kuy laaj question ne ko cheikh bi mu ne ko la bayk mu ne ko ndax nit mun na woor te du ndogu cheikh bi ne ko loolu nu mun nekkee ku woor kay bu ngoonee da ngay ndogu lu tax doo ndogu mu ne soo amul loo ndogoo nag ndax mun ngaa continuer noonu wooraat yow fan nga nekk mu ne maa ngi dëkku sangam place sangam fii nit ñi dañuy woor ba ngoon dañuy naan ndox continuer duñu am lu ñu lekk xoolal ñun fii laa ilaha illallah da ngay lekk bay këpp ci mbalit mi jox say xar dañuy lekk ba jox xar yi ak muus yi ci jamono boobu am na sunuy dëkkandoo sunuy mbokk yoo xam ne ndeysaan teguñu cin yonent bi nee na bokkul ci man ku denc dépasse suba sa mbokk mu ngi sa wet nga yëg ne amul dépasse nga denc loolu yonent bi ne bokkoo ci man te yonent bi ne kum ne bokkoo bokkoo kon weeru koor weeru sarax la wa kaana sallallahu alayhi wa sallam ajwadu naas yonent bi ku tabe la woon waaye su weeru koor ñëwee day tabe ba raw ngelaw lii bokk na ci li ñu war a njëkkante ci weeru koor addu'a ñaan yonent bi nee na ku woor ba ngoon am nga ñaan goo xam ne boo ko ñaanee yàlla dencal na la ko soo ñaanee mu may la la ilaha illallah weeru koor weeru ñaan la de su weer wi feeñee balaa ngay woor da ngay ñaan allahumma ahillahu alayna bil amni su wee sooy dog ngay ñaan zahaba zama'u wabtalat al uruqu wa sabata al ajru insha allah allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart faghfir li ma qaddamtu wa ma akhart nga ñaan say soxla ñaan ñaan ñaan ñaan waaye ñun jamono boobu ñu ne ñu ñaan leen ñu may leen jamono boobu ñoo ngi seetaan sketch ak théâtre yi ndeysaan di xàqataay yi nga gis ku woor ba ngoon ba woor ba dak wallahi ñaanul waxuma sax kooku benn fan boobu ñaanul waaye di nga gis ku woor ba koor gi jeex musta ñaan musiba moo nekk ci réew mi musiba bokk na ci li ñu war a góor góorlu ci weeru koor islaahul qulub defaraat xol yi xol yi xol yi xol yi mbokk yi xol yi yàqu na mbokk yi ñaawteef bi ngeen di gis ci dëkk bi yëpp dara waralu ko lu dul xol yu yàqu raxas xol yi min al xilli ci mbañante wal xasadi iñaan wa sakk sikki sàkka wa riya ngistal wa nifaaq naafeq wal fusuq kaccoore ay feebar la yoo xam ne ku ko deewaale balaa ngay dugg aljanna yàlla yóbbu la safara lakk la ba ba tilim tilim yooyu deñ yàlla doog laa yóbbu aljanna musiba la képp ku dee dajeeg yàlla yaa ngeeg mbon yaa ngi iñaan yaa ngi sikki sàkka ci diine yàlla ji yaa ngi ngistal naa fekk nga sa xol dafa waw sa aduna yàqu na sa alaaxira day yàqu fa dunya faaniya ibadallah aduna day jeex aduna day jeex loo fi dund dund dund dund walaw ista alfa aamin wa alfayni baada fala budda yowman tadxulul qabr boo dundoon junni at ñu wisaat la yeneen junni at yàgg-yàgg di nga dem bàmmeel dañoo laaj yonent yàlla nuux ne ko yow nuux daanaka li nit ñi doon dund yaa ko dund ndax dund nga junni at yu manqué juróom fukk alfa sanatin illa xamsina aman te loolu sax borom xam-xam yi dañu ne nuux ëppal na ko lu tax ñu ne alfa sanatin illa xamsina aman bi ko yàlla di yónni la mais avant yàlla di ko yónni boolewuñ ko ci gars yi ne ko waaw nag léegi yow nuux at yi nga am yëpp nu mu bëree noo gisee àdduna nett li ñu àdduna nag noo ko gisee comme yow yaa fi ëpp expérience yaa fi gën a dund ah yow dund nga ay ati ati at waay waay wax ñu nu àdduna noo ko gisee mu ne raaytuha kaddaar dama ko gis mu mel ne benn kër gu am ñaari bunt nga dugg fii génne fii noonu la mel ndax loolu yàgg na kër 15 sur 10 mu am ñaari bunt kër nga dugge bunt bii génne bunt bee ndax loolu mbokk yi yàgg na ñaata minute la loolu ñaata minute la loolu kër 15 sur 10 bu am ñaari porte nga dugg fii génne fee loolu ñaata minute la xanaa lu mu bon bon boog 3 minutes la ko nit di traversé génn kër gi kon àdduna noonu la ko nuux gisee ixwatal iman ayu ayu ayuhal ahbab ahibba ihfazu siyaamakum wattu leen seen koor mooy tandiku leen luy yàq seen koor wala muy wàññi tiyaaba yi moytu leen lu araam woor ba ngoon di doge cigarette woor ba ngoon di doge sangara woor ba ngoon di tux yamba woor ba ngoon di njaaloo ji ab jullit bu wooree dafay wattu kooram rawatina nag bu demee ba ngoon moytu leen luy yàq waxtu yi toog ci damier toog ci grand place toog ci bolot toog ci lido toog ci toog ci toog ci mooy tandiku leen lu yàq seeni waxtu ndax dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy lu suusu ramadan ñooy sàcc koor te ñoo ngi fi weeru koor minit yi kenn du ko sànq weeru koor bis yi kenn du ko sànq weeru koor guddi yi kenn du ko sànq weeru koor minit yi kenn du ko sànq mooy tandiku leen lu araam ci weeru koor waaye mooy tandiku leen lu yàq seen koor ixwatal iman musibɓe fulɓe caggal yettude allah e juulde e nelaɗo men muhammadun sallllahu alayhi wa sallam hande khutba men wonno hoto laatoɗe hoto gone no bandiraɓe yusufa ni oɗon gandi yusufa bandiraɓe makko nde ɓe jaggimo ɓe ndenni ɓe mbi ko yoɓe mbarmo ko noon ɓe mbi onon hoto mbare lewru mon koorka ɓe mbi beddoɗemo e ɓundu ndu onon hoto beddoɗe koorka mon e ɓulli ɓe mbi beddoɗemo e leydi goppemo onon hoto beddoɗe koorka mon e leydi ɓe jeeyimo onon hoto jeeye korka mon gone no laamɗo o watno ni holno laamɗo o waɗi o wi acrimu maswahu teddine teddine no gonirɗon e makko ni asa an yanfa'ana yama ñalawma nan arma o naf en aw nattahizuhu walada walla jaggen mo o wona ɓiɗɗo onon jagge asa an yanfa'ana ma naf en aw nattahisu safi'an yawma alqiyama janngo korka ma ar tefana en e yeeso jommen nanna en aljanna lewru korka ko lewru adu- adodiral waɗoɓe hen ko moƴƴiɓe gonno koye adodirde gadodire hen korka gadodire hen naflude gadodire hen duwa gadodire hen sakkade gadodire hen fewnude ɓerɗe ɗe neɗɗo yo fewnu ɓernde mum yo ittu hen haasadi yo itte heen sikke yo itte heen yeengo yo itte heen nifaq naafigue yo ittu e ɓernde makko ɓernde yorde mbokk julit yi bu ñu paree julli inchallah niñ ko baaxoo di def am na mbokk julit yi ñuy diis seeni aajo ñu ngi ci jumaa ji ñi feebar ñi am jafe-jafe ñi amul lu ñu ndogoo ñu góorgóorlu inchaa allah suñu paree julli kenn ku nekk loo fi mën a bàyyi loo indaale ci sa poos incha allah bu ñu paree julli ñu séddale ko mbokk julli yooyu allahumma arina alhaqa haqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقامة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله